traité na ay problème yu bëri. ñu ne bulletin de vote bi mu nga jóge fu mel na Kolda la woon de daal ñëw tab Sédhiou Sédhiou daal di tab bi ci biir dëkk bi Dakar Kër Massar wala ñu ne Bambey la jóge tab bi Parcelles Assainies yu demee noonu bon ah ak yooyu yooyu am na aussi remarqué woon nañu ne matériel bi ba ñu commencé woote bi daf ci am yoo xam ne nekku fi woon. DSP Afrique profité na sax ci occasion bi ngir def ay recommandation ci kilifa yi yor wàllum élection. dañu yaakaar ne affaire matériel bi loolu war nañ cee gën a góorlu ndax war ñoo xool matériel bi euh, ñu koy ñu koy indi ci kalamu électeurs yi war na fa fanaan dafa war a fanaan. réseau bi mu ngi woo candidat yi contester résultat yi nañu def seen recours te respecter procédure yi ñu àddu jëmale ci jongante gox goxaan yi xam nga ne kon résultat officiel yi génneegul ay tendance rek la am am na ci gox yi nga xam ne nag euh, gis nañu résultat yi nam fa doxee ba kafa gañe am na fa waaye it am na ci yeneen bërëb yi nga xam ne waaye Yewwi Askan Wi nee nañu jamono ji waa benn bokk yaakaar ñu ngi def ay pexe ngir sàcc résultat yi te loolee duñu ko nangu bokk na sa sa Tëngéej waaye Yewwi Askan Wi nee nañu kon ñoo fa gañe kon nag benn bokk yaakaar na toog noonu la ñu ko waxee sa Thiès ak sa waxi naan Nimzaat rawatina sa département bu euh, Guédiawaye nee nañu ñoo gañe ñoom waa Yewwi Askan Wi kon waaye nañ leen jox seen ndam euh, ab laaj nag daal di samp ndax nag euh, ba fii ñu euh, toll nii résultat yi génneegul ndax du ànd yeneen ci ak réero ñu ànd seex Younoussa Baldé ci ak taxaw seetlu leader partie politique yu bokk ci yeewi askan wi génn ci tekk tekkaaral bu ñu nekkoon ngir artu askan wi ci ab bataaxal bu ñu génnee conférence des leaders bu yeewi di xam ne nii rek nguur gi ñu ngi waajal ab càcc bu métti ci yenn diwaan yu mel ni Rufisque bañu sukkandiku ci seeni bataaxal pouvoir bi mu ngi def seen kéem kattan ngir fokkati seeni victoire bi ginnaaw bu seeni candidat bi di docteur Omar Cissé jëlee ndam li ci lu soxol wil bu Rufisque nde nañu moo gañe Rufisque Est genre conférence des leaders bu yeewi ne duñu nangu benn yoon ñu neewal leen doole mu mel ni luy xeeñ ci Thiès tamit neexul dara ci l'opposition bi rawatina coalition yeewi askan wi leader yi di xam ne nii rekk nguur gi dafa bëgg def ay njuuj njaac ngir nangu ndam bu docteur Babacar Diop am ci Thiès ville ginnaaw lapp yu métti bu mu lapp ba jatara ci waaxi naan Nimzat nekk ci département bu Guédiawaye banlieue bu Ndakaaru lu fa yeewi askan wi nemmeeku bëgg sàcc seeni victoire bi waral usmaan Sonko ak Khalifa Sall di woo seeni ñooñ ñu mobiliser wu ngir nguur gi respecter volonté populaire bi deseen ba tey ci jongante googu xaan yi résultat yi nga xam ne moom moo ruusandi Yewwi Askan Wi teggum tànk ci gox yu bari fii ci euh, Sénégal loolee dafay firndee ne kon parti démocratique sénégalais AFP ak parti bi di réew mi ñoom nag mënees nañu wax ne euh, ay parti démb lañu ndax gas nañu leen suul bu ñu sukkandikoo ci résultat yi euh, Moussa Diaw xelam dafa màjjëm ci wàllu politique mooy ni gisee dafa jàpp ne kon it ku ci mel ni Idrissa Seck ak Moussa Sy ñoom nag bie boo rek ñu laal seen basang dem retraite politique ndax nag waa Yewwi Askan Wi yóbbu nañu leen professeur Moussa Diaw enseignant chercheur en sciences politiques sa université bu Saint-Louis yooyu la kàddu la dénk Younoussa Baldé leader parti politique yu bokk ci yeewi askan wi génn ci tekk tekkaaral ñooñu ñoo rallié woon indiwuñu dara ñoom ñëpp dañu perdre derrière donc seen poids politique seen aura dafa wàññeeku bu baax et donc calcul bu yooyu ñu defoon pour déstabiliser opposition bi léegi situation yi dafa wane ni ñooñu perdre nañu donc représenté wuñu traituñu dara ma yaakaar ne nag kooku war na ci tirer leçon ni yooy yëpp amul solo lu am solo mooy def politique ba nga xam ne nga méngoo ko le le citoyen yi jonkanteel comme difficulté nga gën ko saafara parti nga xam parti classique lañ koy waxee classique yi nga xam ne euh, xalaatuñu sax idéologie waroon nañu renouveler seen seen personnel politique seen cadre politique waroon nañu liggéey pour restructurer defuñu ko jeunes yi nag ne se retrouve pas amatuñu benn identité ci parti yooyu kenn mënatu leen convaincre ci parti yooyu parce que discours bu dépassé la ba adapté wul ak réalité moo tax jeunes yi ñu ngi ci yeneen parti yu bees yi résultat yi sa ville bu pikin jàppale ne kon Abdoulaye timboo nga xam ne moo fa nekkoon nee na ndam li askan wi joxaat nañu ko te askan wi dañu tànn wéyal liggéey ba nga xam ne moo fa nekk euh, moom ci boppam mu ngi jaajëfal bu baax askan wi sa foofee nag jot na fay yëkkati ay kàddu euh, di dalal xelu ña nga xam ne taxaw nañu fëgg seen dënd ne kon ñoo fa gagné te alors que nag askan wi moom la ñu tànn moom Abdoulaye Timbo yóbbante na leen ay kàddu ñu teewlu ko nanga ko ba ko. liggéeyal Pikine dong ma yëkkati bu ñu delloo nag ba xam loolu ñoom seen bopp jël confiance boobu delloo ma ko damay profiter loolu gërëm leen sant leen en attendant que des résultats officiels nous on fera un point de presse pour en les correspondants de la banlieue te du ngeen defantu du ngeen waxantu su ngeen waxee li ngeen wax mooy dene te man sama bopp mën naa ko confirmer parce que on a nous aussi nos PV on sait effectivement la ndamuk Abdoulaye Timbo googee de waa wàllu Sénégal coalition ba ca Pikine nee nañu dara musi euh, ñoom dañuy teg ay pexe ngir sàcc élection yi waaye boo seetee ba sa biir waa wàllu Sénégal ñoo jëm euh, jël ndam li ndax nag euh, ci fukki commune ak ñaar nekk foofee sa ville bu Pikine juróom yi ñoom ñoo ko jël ñettee sa des jàppale ne waa coalition gëm sa bopp ñoom ñoo ko jël la sa des nag kon ñeneen ñoo ko doon xëccoo loolu dafay firnde ne ko ñoom waa wàllu Sénégal ñoo jël ville bu Pikine ñu teewlu sa ñenn si ñoom jot nañ sa yëkkati ay kàddu dénk dénk ko Nankoba Kayoko coalition bi ñuy woowee gëm sa bopp gagné na Thiaroye sur gañe na Tivaouane Diacksao mais gagné na également Diamaguène Sicap Mbao waaye la grande coalition wàllu Sénégal gagné na Djidda Thiaroye Kaw gagné na Pikine Ouest gagné na Guinaw Rail Sud na Guinaw Rail Nord na Thiaroye Gare il peut pas gagner cette ville ñun gagné nañ juróom te yu mag la ñu rawee man rawee naa leen deux mille trois cent soixante-quinze voix si nous commune nga gagné bëgg a gagné mairie. te commune yu tuuti la. Iba raw gàddu la. sa tënk coow mu ngay wéy di ba léegi ca ville bu Pikine ndax nag ku si nekk mu ngay xëccu jëmale ca boor waa Gëm sa bopp nee nañu nag ville bu Pikine ñoom ñoo ko gagné démb amal nañu ab caravane dem sa buntu mairie ba di laaj caabi ji ñu teewlu sa yenn ceer ay responsable yi nga xam ne jot nañ sa yëkkati ay kàddu Abdou. bi ñuy woowee commune ga ñaar gañe leen ñaari commune gañeleen leen euh, ville ñu taxaw di def ay di def nekk ci média bi di wax naan ñoom ñoo gañe nañu arrêté loolu donc tey candidat yi ñuy wax yëpp du yeewi askan wi moo gagné ci benn côté gagné fa du Ismaïla Madior moom mi nga xam ne feefam Lamine mii da ko fa dóor tey a rafat donc bu ñu indi benn problème ci Tëngéej. école bi ma voté soo leen xoolee dix bureaux de vote moo fa ne lépp laa dóor dafa la Omar Ciss voté lépp laa dóor nga dem fële Ismaïla Madior Fall voté dama ko fa gagné nga dem fële nga xamante ne moom mooy bloc tey gis na ne séddoo la te kenn mënuma fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen dama ne lii leer ba leer mooy am nañu ndam nañ ñu jox suñu ndam ñeneen ñu taxaw ne kon ville bu Tëngéej ñoom ñoo ko gagné ñoo di waa benn Bokk Yaakaar Ismaïla major Fall ndax nee nañu waa gëm sa bopp dañoo man di wax rek waaye tendance yi lu mu génneegum ñoom ci boppam daf leen jox favori te nag yaakaar am na ci matandooy moo àddu si seen kàddu ñu teewlu ko. fii may wax ak yow nii nee la confiance lañu am parce que suñu candidat Ismaïla Madior Fall mu ngi en avance. si wàllu voix il est en avance si yeneen coalition yi en tant que mandataire élément yi nga xamee ne que PV yi nga xam ne moo jógee daal tous les bureaux de vote si biir Tëngéej mu ngi ak man te bi ñu ko càmbaree démb si guddi gis nañ ne Ismaïla Madior moo nekk si kanam. Ah, dañuy jéem a jaxase opinion bi dañuy jéem a def lu ñuy wax trafic d'influence mais xam nañu xam nañu ne. ñoom li ñu yor loolu la ñu yor xam nañu ne Ismaïla Madior moo nekk si kanam ba fi may wax ak yow mais comme ñun nag dañu nekk si liggéey pareeguñu tribunal laa génn nii pour wax ak yéen donc ñu ngi si biir liggéey pare na mais d' après les éléments yi nga xam ne man yor naa ko Ismaïla Madior est le maire de la ville de Rufisque waaye Yewwi Askan Wi foofee sa tëngeej nee nañu muy gëm sa bopp di benn bokk yaakaar dañuy xaar ndax nag eh, dafa neex loolu nga fëgg sa dënn yaa gagné eh, te alors que ñoom ci boppam bu ñuy wax seen dam eh, dañ ci am ak firnde ndax seen i PV mu ngi seen loxo kon nag leer na ñoom waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gagné ca ville bu tëngeej gagné sa Sangalkam gagné sa Sébikotane gagné sa conseil départemental ba nord ak ñee nañ ñoom ñoo ko gagné Omar Cissé moo nekkoon tête de liste bu coalition Yewwi Askan Wi kon nag nee na moom ci boppam moom la ñu tànn def ko maire di ville bu Tëngéej ñu teewlu ay kàddoom moom it. Yewwi Askan Wi moo gañee ville de Rufisque moo gañee commune de Sangalkam moo gagné commune de Sébikotane moo gañee conseil départemental li ñuy wax dañ koy firndeel moo tax boobu ba léegi ngeen gis ñu ñu yónnee leen ñu yónnee leen ay documents. ñun jox nañ ñu fa 26 conseillers ndax ñoo gagné Rufisque Nord ñoo gagné Rufisque Rufisque Est commune bi ci gën a tuuti mooy Rufisque Ouest ñoom ñu jox 10 10 conseillers Alioune Mar li ñu tax a gagné ñetti communes yooyu ñi ñu voteel foofu ñoo ñu voteelaat ca liste proportionnelle ville ba. fu 44 conseillers rek la ku nekk sa pourcentage ngay jël nga gagné noor gagné Est gagné nañ élection yi lu leer nañ la dañuy wax samay wax sa mag Alioune ni ko. mënoo gañee benn commune bi gën a tuuti tuuti ci dëkk bi <laughs> nekk maire <laughs> maire dëkk bi loolu xel sax da ko mënul nangu. nag pour kaawu Benno Bokk Yaakaar ñoom xaw gañe woo fen <laughs> yow gañe woo nord gañe woo est xanaa waroo am sañ-sañ xanaa kat kan mooy revendiquer ci ñoom ne ne ne la nag. mu ko mu dee kàddu yi tukkee ca Omar Ciss bu Yewwi Askan Wi euh, ñu àddu jëmale ca Kébémer gannaaw ba sa Tëngéej foofee waa coalition wàllu Sénégal dafa mel ni ko ñoom ñoo ci jël gox yu bari téeméer boo jël ñeent fukk yeex ñaari ci gox ñoom ñoo fa gagné euh, ba ci euh, département ba Benno Bokk Yaakaar nag am na ci rek yenn ci ay gox goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo ko jël ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñu dem sa Kébémer ànd seex Gàllaay Silla Kébémer nga xam ne fi la président Abdoulaye Wade dëkk amoon nañ fi 15 li njëkk a génn nag tukkee ci élection yi wane na rek Lamine Thiam mi nga xamante ne moo jiite coalition wàllu Sénégal moo jiitu am ci bile commune ba tey bu Kébémer Sikir Mbay mi nga xam ne mooy candidat Yewwi Askan Wi am na 1311 voix coalition Gëm Sa Bopp nag bi nga xam ne Dame Kébé moo ko jiitee am na 505 voix ci commune Kébémer wàllu Sénégal dina fi conseillers ak ñaar benn bokk yaakaar am fi neuf conseillers Yewwi Askan Wi dina am quatre conseillers grande coalition gëm sa bopp am benn conseiller ci département bi nag moom nga xam ne amoon nañ fi cent vingt cinq mille trois cent seize électeurs benn bokk yaakaar moo ko gagné gannaaw ba mu amee trente trois Askan Wi topp ci am dix Wallu Sénégal am dix sept nag ak candidat bii di Modou Diagne Fada dinañu am ñeent fukki conseillers ak ñett Wallu Sénégal ku ci nekk am juróom-ñeenti conseillers listu gëm sa bopp bi nag moom ci commune bi rek lay compétir waaye jotu la teew ci département bi buñ boolee lépp nag nga xamante ne ci département bi la ci Kébémer Benno moo fa jiitu waaye rek ci commune bi moom ba fii coalition wàllu Sénégal moo ko jiitu ñi bawoo Kébémer dem sa Sédhiou foofee Jean-Pierre Senghor bu coalition Nafoore moom moo jël deuxième euh, ci kanamu maire ba nga xam ne moom moo fa nekkoon te ñu ne moom moo jël ndam li di Abdoulaye Diop bu coalition benn Bokk Yaakaar waaye nag Jean-Pierre nee na du ko félicité ndax nag na mu gañee moom Abdoulaye Diop xam nañu ko ndax kopparam la génne jënd li nga xam ne moom mooy askan ba noppit am fu mu jëlee ay électeurs euh, maanaam sa Gàmbi andi leen foofee sa Sédhiou ngir ñu mën a voté noonee la gañe kon nag jarul mu koy félicité ay kàddu la yu mu yëkkati dénk ko Ibrahima Diallo Euh, élection nag sooy dem élection ñaari mbir euh, gañe wala ñàkk gañ euh, yàlla dafa def gañewuñu mais perte boo gisee ma ne perte ñu ñoo xam ne ñu ngi fii depuis fukki at nekk ci kujje politique bi ñun ñu nekk deuxième maanaam boo jëlee gañe ak ak ñun ñoo ci topp jàngat bi ma bi may jëlee ci élection yi gis naa ne bu ñu indiwuloon ñëpp ñi nga xam ne dañ leen di transporter indi leen ci ñu jógee ci yeneen i dëkk yoo xam ne xam nañu am nañu list bi am nañu yëpp Kaolack Ziguinchor Thiès ak yeneen i dëkk yoo xam ne ñoo ñu wër résultat yi du demee nii en démocratie ki am ndam nga ne ko gàcce ngaalam euh, di ko sargal ma ne mënuma ko def bëggoon naa ko lool mais mënuma ko def parce que bëgguma fennal sama bopp parce que yaakaaruma ne waa Sédhiou yi rek ñoo ko woteel su ma seetuloon leneen sax damay def recours man dama rus d'abord li am dafa rus waaw leneen li nga xam ne moom moo tax ma rus mooy région bu mel noonu warul nekk dernière région boo boo xam ne yow yaa nekk ndaare en terme de développement ndaare ñun dañ dañ ko rus loolu moo tax parce que jox xaalis nit loolu xeex naa man joxewu ma xaalis kenn financé wu ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon xam ngeen ne suñu gayndey tey jii bu 16h jotee dañuy euh, teseex Cap Vert ni ñu koy defee saa su ne suñu jotaay xibaar dañuy fekk ji Soxna Fall foofee ca euh, Bafoussam Cameroun huitième de finale yi tey jii Sénégal Cameroun gannaaw ba ma la nuyoo lan lañ si mën a jàpp ci wàccaay li gannaaw ba ma la fayee yoo li nu mën a jàpp mooy euh, Sénégal euh, tey lay jongante soobu ci huitième de finale yi seen diggante ak Cap-Vert match piège day doon nag ndax gis ngeen équipe yi nu duppee woon équipe yi ndaw sensation bi ñu def ci Coupe d'Afrique des Nations bi waaye lenn rek mën nañ ko ci daal di xam tey ji la ñu xaar Kilifeu Maga Diédhiou euh, Aliou Cissé daal di koy titularisé ci pointe de l'attaque bi ngir ñu mën a dugal ay but yu bari waaye ci digg bi Gana Gueye lañ fa daal di gis ak ki nga xam ne mooy Nampalys Mendy Pape Gueye tam mën na daal di rek jouer gannaaw absence su Kouyaté yu nga xam ne dafa am ñaari carton leneen li mooy démb xar kanam bu dal xel ak déconcentré euh, lañu gis ci gaynde yu Sénégal yi bi ñuy amal seen entraînement bi fi yees nag mooy tey jii ci suba la Ismaïla Sarr yegg si euh, ci tanière bi ñu am yaakaar xëy na Aliou Cissé même su titularisé wul ko dina am as lëf bu daal di koy euh, dugal mu bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi koy xaar bu baax depuis le début de la compétition kon mi ngi noonu. Euh, ci kanam tuuti lay doon 16h foofee ci Sénégal Mame Mbaye ngir Sénégal wane tamit lu rassurant ndax li ci des moom mooy gagné daal di jàll sino rek euh, mooy ñibbi euh, lay daal di doon ndaxte élimination directe lañu toll ci match yooyu Sénégal war a assumer li di de leader am place bi nga xam ne moom la am ci Afrique tey ñuy xaar le grand jeu war a mën a convaincre le public sénégalais kon ci kanam lay doon diggante Sénégal ak cap jaajëf soxna Fall ci kanam lay doon 16 lu ko jiitu benn waxtu euh, laata jongante bi jàppale ne kon président Lamine Gueye ak équipe am dinañ jàkkaarloo ak yéen euh, def taxaw seetlu ci wàccaayu li nga xam ne rek moom mooy jongante boobu muy euh, Zoom CAN niñ koy defee saa su ne ci si FM ak Sen TV pàcc bu mujj bi dañ si ànd ak Mantoulaye ci bundoo li yéen a kaay xëy fësal. dikkati naa. ani ñu ne woon Benno Bokk Yaakaar dina suul nañ ko. Sud Quotidien ne mukk bennoo kay pare wun sax ngir faatu fa yàllaaxu bennoo bokk yaakaar nee ñu dee duñu ko jege donte nag toroxal nañ leen fii ci ndakaaru daal di leen di sëlëm suuf ca Jurbel daan leen ca Kaolack ci leen ardo ca Sigicoor Sud Quotidien ne ma El Hadji Amadou Kassé ministre conseiller xamle na ni ci ñeen fukk ak ñetti département fanweer ak ñaar bennoo bokk yaakaar moo ko gagné Vox Populi ne ma bennoo bokk yaakaar kay nee ñu ndam la ñoo ko am nee fukk ak ci diiwaan yi am ci réewum Sénégal fukk ya bennoo bokk yaakaar moo ko contrôlé fukk ci capitale régional naal ñoom ñoo ko gañee ñeent dong lañ ci ñàkk yeewi askan wi ak Déthié Fall ne attention ñii nag ñi ngi ci yoonu sàcc élection yi source a xam le ni bennoo bokk yaakaar kay dañuy déliré ñii nag dañoo mel ni ñu nelaw ba gént yeewu nag di wax la leen saf l'observateur ne ma ne Macky Sall moo war a jëli pexe ci lii Fatick fukk ak juróom-ñett ci ay commune la ñu ñàkk Matar ba ñu daal di ko yóbbu ca cour d'appel ca Malem Odar nguur gi daal di fay ñàkk commune ba ak département ba ñeent ci commune ci diwaanu Kaffrine bokk yaakaar ñàkk na ko fii ci Ndakaaru jël gerte wax ñaar ci commune dong la si Benno Bokk Yaakaar gagné terewul l'observateur ne ma waa Benno Bokk Yaakaar nee ñu ñeent fukk ak ñetti département yi fanweer ak ñaar ñoo ca am ndam laas ne ma ña yuuxu ndam de waaye Bamba Fall moom am na ndam ca Médina moo rawee Cheikh ba juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti baat critique yéene kaay ne ma Benno Bokk Yaakaar am na fu nu am ndamit ca Grand Dakar Jean Baptiste Diouf ak docteur Doudou Sène ñoo fa gagné ca Patte d'Oie jigéeni di Banda Diop ca Tiwaawan xamle na ni amul ndam kon bàyyee na ko Malick Sall Abdoulaye Seydou Sow ni ak lu ci mënti am bu doon ay élection présidentielle day ca tuur wu njëkk wala ñuy daal di jàll réew mi ko di jeen na cay boobu ndam Benno Bokk Yaakaar nee ñu am na ñu ndam waaye boobu ndam njum moom Cheikh Omar Anne dëbb na ko waaye yeewi askan wi banlieue bi la ñu daal di raatale ba mar day taali libération yéene kaay loo ci mënti waxit Benno Bokk Yaakaar ñi ngi ci guddi gu bër setagul lu metti li ñuy dund saa si tembe Tiwaawan moom ñàkk nañ ko leer na ñàkk nañu taatagin Soomoon Bambey Kanel Kër Madiabel Kédougou Kédougou ginnaaw Rail Nord Thiaroye Gare Tivaouane Diacksao Diamaguène Sicap Mbao Jaxaay Parcelles Ribot Escale Koungheul Ndofane Thiaré Dia Sibassor Kahone Diébel Ndiédiène ca diwaanu Tëngéej moom Benno Bokk Yaakaar Libération ne ma dañu ko faa dóor ba muy toggi xewar ci Kër Massar juróom ci juróom benni commune Yewwi Askan Wi moo fa am ndam Momar Talla Gadiaga moo leen ca soowe ca Malika Racine Talla ca Wakhinane Nimzatt Cheikh Dieng ñàkk ji de Thiaroye Kaw Ndiaga ñangit ñàkk Thiaroye sur Mer bunt bi daal di fëll fëll gu yees daal di Diomaye Faye ak El Malick bu Pastef ñàkk ci seeni gox libération ne ma Benno Bokk Yaakaar ba tey ma ngay xam le ni ñoo am ndam ci élection locale yi turbine ne ma bu leen fàtte diwaanu Thiès mburoog sooba wopp na ba ma nga ca koma Idrissa Seck ñàkk capital ba moog ñamu àndal waaye dara waralu ko yéen kaayub des médias bi ne lu dul transhumance ba nga xam ne gaa moom la ñu lu ba daal leen di faye ñàkk gi ca diwaanu Thiès manta ñàkk turbine yéen kaay ne ma président Macky Sall faaw mu kutti bopp yéen kaayub des médias bi ba tey xamal ma ni ca xombool day coalition gox bu bees moo fa am ndam magay booy lu toll ci ñaar fukk ak benn ci ay bureau de vote fukk ak juróomi ñoo ne ko furus am ca ndam ñu am nag ñetti junni ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ciy baat bennoo bokk yaakaar am ñetti junni ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay baat kon coalition gox bu bees moo am ndam ca diiwaanu xombol l'enquête ko di yéene ci république bi day ña ñàkk bari nañ Abdoulaye Diouf Sarr ndakaaru bugguñu Amadou Xot yéggamatul boo moytul ci wàcc lay mujjee Omar Gueye porte parole boo xam ne wéeruwut fenn asom jaata ñàkk goo xam ne dootu ko fàtte l'indépendant ne ma maam booy jaawo day teggi na ndànk bi bi balde ci siisam yéene kaay bi ne may yeewi askan wi dóor Benno Bokk Yaakaar ba ñu tërëf moom l'Indépendant ba tey ne gaa yu Macky Sall yi nag ña nga xam ne daanaka amoon nañ yaakaar ci ñoom ñoo ami ndam ñii ñoo ñàkk seeni gox Aliou Sall ñàkk na Antoine Félix Diome Abdoulaye Diouf Sarr Aminata Assom Diatta Yankhoba Diattara ak Amadou Hott Gueule Tapée Fass Colobane moom candidat yeewi moo yóbbu Ousmane Ndoye retraite le témoin yéene kaay ne yeewi askan wi wane na dooleem dëgg ci élection locale yi Benno Bokk Yaakaar daanaka sey na wàllu askan wi moom dem na jàpp ni président Macky Sall ñàkk na l'évidence yéene kaay ne wax ji wax ji nañu bàyyi xel gëm sa bopp ak Bougane Gueye Dany Macky Sall ci ndorteem 2009 ñaar ciy commune la gañe woon tey jii ndorteem gëm sa bopp am juróom benn ciy commune am nañ ndam ca Médina gëm sa bopp am ndam ca Rufisque Ouest am ndam ca Kousi ca Sémékanta ca Sédhiou ca Saare Badji ca Kolda ca Djidda Thiaroye Kaw l'exclusive yéene kaay ne ma moo ne day ma ngay xëccoo ville bu Rufisque moom gëm sa bopp ndax nag Alioune na ndam ca na ca Rufisque ville moo fa jël ak gëm sa bopp waaye ña ko bëgg a foqati seen loxo jébbal ko Ismaïla Madior Fall l'évidence yéeni kaay nañu bàyyi xel Ahmed Aïdara yi de waa ci micro la tàmbalee teeri ci mairie le quotidien le quotidien ne Seydina Samb day nee faax ci mairie bu Yoff source a xamal ma ne nañu xool dëgg-dëgg lan moo tax président Macky Sall mi ñàkk le quotidien le quotidien ne ñàkk wax waaw ak